Sonko yàlla boo dajeeg loo ragal gëm nañ la bëgg nañ la dara du ko dindi dal leen ak jàmm ami site internet suñu live TV li gën a fas ci bopp xabaar yi nag dañ koy doo rek kàddu yi nga xamante ne nag kii di Matar Sylla daal dina koy yëkkati moom nag la mu daal di xam ne rek mooy débat nationaux yi nga xamante ne rek lancé woon nañ ko niki alxames bi ñu génn nag di wax ci wàllum média moom nag la mu daal di xam ne rek moo di liberté presse moom ah, des na lool ndaxte bu ab ci ab émission nag buñ ko dalaloon niki dimanche bi ñu génn ci jury bu rajo yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar Matar Sylla nekk co responsable responsable bu comité académique la mu daal di xam na rek moo di see débat nag war nañ koo xool xoolaat ko ndax professionnalisme dëgg rek la laaj moom nag ba tey bu ñu sukkandikoo ci moom nee na nag ñii di bailleurs des fonds yi nag war nañoo am importance nag ba événement yi nga xamante ne nag moom mooy circuler ci biir réew nag ñu daal di koy euh, bañ a fësal euh, lool moom nag la mu daal di souligner waat ci boobu le mbir moom météo si la ma di ne bu fekkee ci début bi rek am nañ ay experts consultants yoo xamante ne international lañ kon bu fekkee nag bu demee ba journaliste yi ñu daal di leen yóbbu ci kaso ji leen tëj ràpp rek kon mbir mu rafetul mel benn yoon ci taaru taarixi presse waaye malheureusement nag fii ci Sénégal wala réew Afrique yu bari rek jóg di wax rekk ñu def la mbir mu ba tax na nag moom repo moom entrepreneur bi la mu daal di xam ne Medina mu ngay invité képp koo xamante nag ab reporter nga moo xam ngay collègue di góor di jigéen nekk ci média bi nag ñu def détention boo xamante ne rek procédure judiciaire xamante ñoom ñoo nekk ci équipe bi rédaction yi nag am li nga xamante ne nag moom mooy ab jàmm nag la mu daal di xam ne ba tey moom Matar Sylla moo di l'instauration bi nga xamante ne dinañ ko def am ay dispositions yoo xamante ne war nañ koo jël yu préventif ba tax na nag jamono ji ma ngay sàkk ñu renforcer waat bu baax kuréel gii di correct nekk conseil pour observation des règles d'éthique ak déontologie yoo xamante ne rek mi ngi ci média bi moom nag la mu daal di xam ne waa rek moo di il est convaincu que ne buñ demee ci tribunal yi nga xamante ne ñoom ñooy confrère ram yi mën nañoo jouer rôle boo xamante ne rek rôle bu am solo ndax division bay d'investigation bu criminel euh, buñ ko jëlee rek teg ko ci kaw média yi rek kon mission nag day mel ni rek ñeneen collègue mi dinañ ko dégg wante nag war nañ koo traité nag ba noppi rek ut ci ak réclamation saytuwaat ko nag ba mu loolu mënta antu moom nag la mu daal di xam ne rek mooy mission nag dafa nekk rek jaaree la ci médiation waaye nag nekk rectification boo xamante ne rek dinañ ko proposer bu fekkee nécessaire na rek régulariser ko ba noppi